ci commissariat dafa laaj ñaar bi ci njëkk mooy mën a def rôle ngir sécurité askan wi ñu doxal ko ni mu waree bi ci topp mooy ñi nga xamante ni yoon daf leen di topp ñu fexe ba seen àq ak seen yelleef donte dañ leen di topp ñu sàmmoo ak moom loolu nag mooy li nga xamante ni mooy gis-gis bu bees bi ñu am ci lépp loo xamante ni servis de sécurité nous daañu ni mu nous ngir yak yak sécurité mat waye ñi nga tamit dañ leen di top ñu ba ak li présomption d'innocence dafa un principe bu am importance le ci démocratie ba lolu waral na top nit wul ni liñ koy toppee moom moo ko def dafa am mbalaan moo xam ni dañ ko ko war a muuree te kenn waru ko muuri lu dul tribunal moom moo wax ni tuuma ji saxal nañ ko waaye tuuma weesu teggiwul ni tekkiwul ni li nga xamante ne moom la ñuy toppee nit bi moo ko def commissariat bii nag li tax mu gën a am solo mooy laata muy ñëw commissariat wu guy murit moo fi nekkoon amoon na liggéey bu rëy bu mu doon def waaye am na pàcc boo xamante ni ci Rufisque Est couverture bi dafa desoon commissariat yi nag buñ ko indee tontu lay doon ci li nga xamante ni dañ ko soxla woon ngir li wër ak li nekk ci biir Rufisque Est yépp service yi mën ci taxaw ni mu waree commissariat yi ñu ngi ko tabax ci budget wu état te ni ñu ko tabaxee mi ngi tollu ci lu ëpp

waye clamé tamit ci la bokk ak lu mu mënti doon ñun ñëpp mën a jël en charge correctement seen ay euh, seen ay préoccupations. yeen yéen tax ñu def ko fi te limay sante ñi nga xamanteni ni fonctionnaire de police yi ñu fi indi moy ñu déglu leen nek ci seen ay yité te lepp lo xamanteni ni indi ngeen ko fi ngir ñu saafara ko ñu taxaw ci def ko ni mu gëna a ndaxte bu ñu fi nekkee yéen yéen a tax